nga ci régime socialiste. Euh, enfin nekkoon na am ministre. <laughs> du gouvernement voilà, la carte du parti la carte de la carte du PDS nekkoon nga j'ai jamais eu nekkoon nga ministre ci temps Abdou Diouf moment boobu vers les années 2000 bi ñuy critiquer le régime d'Abdou Diouf euh, li ñu doon tekki table bi mooy la politique d'ajustement structurel mhm. ñu di subvention yëpp euh, FMI imposer vraiment tànc le régime socialiste ba nga xam ne euh, dañ doon def du pilotage nii rek mais mënuñu mm-hmm. woon investir mënuñu woon recruter euh, d'ailleurs sax dañ doon wàññi nit ñi tout à fait Ablaye Wade ñëw est-ce que du mu mel ni Ablaye Wade dafa sone la révolte contre mm. les institutions Euh, de Bretton Woods mu mel ni les d'ailleurs relations euh, entre Wade et les gens du FMI euh, entre le gouvernement de Wade et les gens du FMI étaient étaient étaient très difficiles. mais ça ne s'est pas passé comme ça. je vous explique xaar ma wax la sama ma ma jox la le le récit. était mm-hmm. très difficile. Mm-hmm. bien que faut pas rêver. ñooñu ñu ngi woon ci biir ñu ngi doon def ay revues conjointes et puis gouvernement du Sénégal doon na jéema a wu sinon du mën a aspirer atteindre certains marchés. Mm-hmm. ñu ñëw ci Macky Sall. Euh, Macky Sall au début jéem na jéem na jéem na résister mais à la fin de la fin et c'est une situation qu'on vit aujourd'hui le FMI a réussi à tordre le bras à l'État du Sénégal mu dindi par exemple mu nekk di wàññi les subventions sur les produits pétroliers euh, ak sur le sur le sur sur l'électricité ak les produits pétroliers et résultat des courses c'est qu'aujourd'hui on va nous appliquer progressivement la réalité euh, des des prix de ces trois présidents kan moo gën a ñàkk a euh, le FMI et la, et la Banque mondiale et pourquoi Alors, euh, c'est une question très intéressante et je trouve que vous êtes l'une des meilleures journalistes en économie et c'est pourquoi vos questions économiques m'intéressent parce que non seulement da ngay documenté wu mais li ngay wax da nga koy xam mais dama lay expliquer ni mu demee nga nga baal ma ma expliquer en même temps sénégalais yi ce qui s'est passé mooy que sous Abdou Diouf Abdou Diouf bi muy ñëw au pouvoir amul woon de quoi payer ses fonctionnaires Senghor est parti dans des conditions désastreuses sur le plan des finances publique première chose Abdou Diouf bi muy dem kees yi dafa feesoon man maa def le point le jour là li ñu amoon en banque yëpp moo taxoon président ab Wade passé son temps di tukki parce que fekkoon na fi xaalis ce qui s'est passé c'est que Abdou Diouf daf dañ ko imposer ajustement structurel ajustement structurel mooy lan moo dañu leb xaalis dem dem dem ba amatuñu ñu nee ñu bu ngeen bëggee ñu continuer di leen lebal fey leen seen bor et pour fay leen seen bor da ngeen di bàyyi solu solu bu rafet bàyyi lekk ganaar ngeen di lekk cere lekk lu seen doole yem ba nga xam ne di ngeen dégager benn surprise xaalis boo xam ne di ngeen fay seen bor loolu amuñu woon le choix et Abdou Diouf amul woon le choix mënoon nañoo yu ko au niveau international ne ah yéen ñuy lebalkat soxor ngeen wàññi leen wàññi leen pression bi loolu mën na am mais jóg fay loo leboon mënuñu si woon daa moo tax les premières initiatives de réchelonnement de la dette wala de euh, bal dette yi mu ngi commencé sous Abdou Diouf et la réunion elle s'était tenue au Gabon pendant que moi j'étais ministre en ce moment la ñu commencé ne dañuy bal Sénégal dette yi ba nga xam ne bi Abdoulaye Wade ñëwee ñu effacé dette yi mais une initiative la woon bu ñu commencé si Abdou Diouf donc ñoom bi ñu defee loolu ñu teg leen lu diis ñuy ñuy def di def di def mais am na benn moment boo xam ne euh, fay bi day jeex mi ngi mal ni benn euh, mécanicien bu toog ak loxoom yi ak lu salte di pousse di di di raxas di réparé di réparer dix ans quinze ans ba pare benn waaye ñëw ne cuus rek mu tàkk ñu nekkat mé mécanicien bi dem na fi 10 ans mënu fi dara kii chauffeur bi dafa ñëw ñaari fan. bi muy dem épuré na les finances publiques non seulement épuré na finances mais man mii toog jàkkaarloog ak yow je suis le mieux placé maay le ministre du plan maa négocié woon seul d' ailleurs à l' moo tax je ma demande lu tax nit ñi nekk une tonne de personnes pour dem maa négocié seul le PST2 mooy tout le programme sectoriel transport et VDN bii ngay gis nii moo tax ñu inauguré ko ñaari yoon. j'étais parti faire financer 52 grands projets à la Banque mondiale seul à Paris ñu def ko ñu am yu bees et moo tax Abdou Diouf muy dem def ko inauguré Ablaye Wade aussi ñëw bi muy doog a ñëw inauguré ko donc tout était sur place Ablaye Wade est venu dans ce Sénégal avec tous les efforts d'ajustement yu ñu jeexal avec toutes les réparations qu'il fallait faire j'avais financé le programme transport j'avais pro financer le programme de dix ans d'éducation ainsi de suite ainsi de suite donc moo tax ma ne état une continuité loolu bi ñu ko defee ba pare nag ñëw toogaat affaire yi commencé le problème qui se pose c'est que on a eu une politique d'endettement loolu ça, ça n'engage que moi et j'espère qu'on aura le temps d'en discuter Inch'Allah, dans une politique avec... d'endettement inopportune Euh, pas judicieuse ah non non non après 2000 ba tey. non waaw je veux dire que tey non à partir de 2000 ba tey. non d' abord à partir de 2000 il y a eu un peu de gaspillage bon mais ce qu'il y a je pense que les finances publiques ont eu à être euh, euh, en tout cas bi bi président Macky Sall di ñëw il y avait le besoin et la nécessité de rééchelonner la dette de l'État parce qu'elle avait un très mauvais profil. après vous vous rendez compte tous les jours de la fréquence avec laquelle on fait des appels au marché financier on fait des appels de trésorerie tout ça a a continué moi pour moi à dégrader la situation et aujourd'hui on est dans une situation où le FMI revient encore parce que loolu mooy rôlam surveillance bu ñu gisee luy déraper ñu la ah, moytul lii ngi lang euh, dagg ko lii ngi lang dagg ko situation actuelle mooy ne euh, dañ toll situation boo xam ne dañoo déraper Oui, on, on a, a fait, dérapé on a sur, fait sur sauter, le plan budgétaire. On a fait sauter le plafond. Non seulement on a fait sauter le plafond sur le plan du déficit, mais autre chose. Il y a un autre problème boo xam ne moi j'aurais bien aimé que le Premier ministre discute avec moi de cette question-là parce qu'il a été ministre de l'économie. Aujourd'hui, nous avons des engagements hors bilan qui ne figurent pas dans la dette du Sénégal et qui sont des risques potentiels qui pèsent sur notre pays. on va en discuter le jour que je l'aurai en face de moi. C'est ces engagements hors bilan? Les, ces engagements hors bilan, ce sont des conventions sur lesquelles l'État s'est engagé pour couvrir des partenariats privés-publics du genre nga ñëw di def centrale fii ñu ne la bés bu accident amee wala bés bu émet amee ñun ñoo lay rembourser sa xaalis et ces engagements là comme le bilan de l'État n'est pas un bilan patrimonial kenn bindu ko et kenn xamu ko et ce sont des engagements qui sont en train de s'en de s'enfler et bu ñu ko yokkoon sur la dette tey on aurait crevé les plafonds parce que Wade on l'a accusé d'avoir regonflé la dette oui alors que dans le cadre de de, de l'initiative euh, vous avez PPT, e, parfaitement raison PPTE voilà euh, wàccoon nañu à ñun initiative PPTE ñun ñoo ko lancé woon ñu dette bi commencé wàcc ba jeex Ablaye Wade ñëwaat et c'est vrai que le président Wade ses derniers endettements et notamment avec son avec euh, Karim avait dégradé sur le plan tàkkal euh, non sur tous les, les plans oui oui euh, sur tous les infrastructures le les taux étaient élevés le rendement les le coût marginal de la dette avait dégradé le portefeuille et ça on le voyait avec les taux avec les montants on se disait normalement que bu ñëwee dinañ refréner resserrer pour euh, am un un développement sain on s'est rendu compte que c'est pas le cas les dérapages ont continué et notamment ont continué sur des engagements invisibles qui sont les engagements hors bilan et que pour moi constitue un immense souci parce que le Sénégal ne sait pas tey quels sont les engagements hors bilan qu'il a la Banque mondiale essaie d'avoir des stocks consolidés sur des secteurs mais les finances n'ont pas une idée de nos engagements ordinaires de façon générale. Mais, mais,